asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu maa ngi leen nuyu yéen ñëpp si nekk si turam ak santam eh, di leen wax ne ñu ngi ñëwaat tey incha allah comme ni ma leen ko waxee woon démb ndax maa leen ko doon tàmmal daanaka boo leen seetloo sag weer dinaa leen jox secret yoo xam ne si wàllu diggante si lay dox ndaxte dara taxul ñu koy def lu dul rek eh, gis neen ne moo gën a fréquent moo gën a ëpp message yi ñuy jot ak waxtaan ñuy waxtaan ak nit ñi. lu ci gëna bëri jafe-jafe yu nekk ci walu sey la jafe-jafe yu nekk ci walu digënté yi la ñi nekk ci sey seen sey naqadi ñi nga xamné itam ñu ngi euh, bëggante ak ñi bëgganteel bëgg sey sey am ci ba paré mu xawa jafé motax ñu indi li pour bëgg jamm di am ndax jamm fu mu am rek su kër yi amé jamm couple yi am jamm rek société bi dina am jamm suñu mbokk jigéen yi surtout sonn bo bëgg dé jaxlé nga nekk sa mu war la yor war la respecté war la bëgg war la fonk wan la ginnaw day metti lool nga am tam sa jabar war la adoré war la jappalé war la déggal de nga wara nek ay yow nek bu rafet ba paré mel nenen. day metti kay yi day nek ci jigéen ñi day nek ci góor ñi dëgg la nak ci jigéen la gëna ëppé ngay dégg ñuy ñuy ñuy yuuxu wàllu jafé jafe bopp waaye nag euh, ñi itam dañ koy dund kon ñu leen di ñaan yeen suñu mbokk góor ñi ngeen yërëm jigéen respecté leen ndaxte sëy commencement bi moo neex mais li si des yëpp ngor la kon nag ngeen yërëm leen ngeen jàppale leen ngeen dimbale leen jigéen ñi itam ngeen respecté seen borom kër yi jàppale leen dimbale leen déggal leen itam kon nag incha allah tay moo tax ma bëgg leen indi secret bi ngeen partager vidéo yi itam ñeneen ñi nga xam ne am amuñ accès ñu mën a am accès itam mën a jëriñu ko mën a mën a mën a jëriñ jëriñu si lii nii incha allah. kon li ngeen war a def mooy da ngeen di bind allahu kon bisimilah rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa sallim ngeen bind faatihatu kitaab muy alhamdulillahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin bu ko defee ba'du kulli aaya maanaam aaya boo jot ci faatiha bi da nga ciy dogal wa alqaytu alayka mahabbatan minni juróom-ñaari yoon wa alqaytu alayka mahabbatan minni juróom-ñaari yoon maanaam aaye boo jot si fatiha da nga koy dugal waal xeetu alayka mahabatan minu juróom-ñaari yoon ba fatiha bi jeex nga teg ci xawaatim bii ngeen gis xawaatim bi da nga koy bind seize fois muy fukk ak juróom-benn xawaatim bi fukk ak juróom-benn moom nga koy bind dégg nga su ko defee incha allah soo paree si loolu noonu fi ngeen gis si digg bi nii si digg bi nii ngeen gis ni yow sa tur du si bokk turu ki nga bëgg nop maanaam ki nga bëgg seen diggante neex. nga ne si jamu mo nga fay duggal turam ak turu yaayam semak, sejabar, nek sa rak sa mak sa jabar sa xarit sa am di jàmm sa ki ngay bëggantel ku mënti doon dal sa jëkkër sa jabar waye nga turam rek nga fay def ak turu yaayam so paré nag nga bind ko 16 fois non non dugal turam turu yaayam so paré nak après nga def ko safara mère dang koy baxal bu la neex mun ko sango ñett fan mais dang koy baxal ko nga sangu da ngay baye ba ndox bi euh, manam dang koy tek ba nga xamne ndox bi ki na ndox bi nugg na nga dog ko sangoo dégg nga léegi bu ko defee bu la neex mu nga sangoo euh, ñetti fan mais soo paree da ngay def zikr wal xeetu aleykum mahabata mi ni 832 wal xeetu aleykum mahabata mi ni zikr 832 incha allah loolu kese la bu ko defee incha allah xam naa dinañ continuer di leen jox ndaxte tey la ñaareelu numéro bi si semaine bi bu ko defee incha allah suba ñu ñëwaat rek si beneen secret boo xam ne itam dana dox si wàllu yii nii yàlla mooy matal yal na yàlla matal yàlla mi mottali yal na yàlla mottali yal na yàlla dimbale leen jigéen ñi góor ñi ñëpp daal seen aaj yëpp faju moo xam diggante sëyi moo xam itam liggéey yeeg lépp lu mënti doon incha allah kon ñu ngi yem fii di leen jox dig daje bu suba allah asalaamualeykum wa rahmatullah wa